Sadio Ka Mbodj am juróom fukki at ak juróom-ñeent nekk principal bu sem Ousmane Ngom bu Thiès nekkoon itam ab professeur d'histoire géographie bu officier ci lycée Malick Sy moom mi lee riiroon ay mbokkam di beer ba nëga ni daal nañ koy mujjee gis fi nga xam ne moom moo di ci dëkk bu sell bi di Touba. ca lu ko jiitu Kumba Sarr dëkk Kër Mbay Fall nekkoon jigéen joo xamante ni dafa fësaloon ni da doon dem marché ab oto bu mu jàpp ne ab clando la daal di cay dugg ñu daal di koy nappe mu daal di feeñee ci dëkk bu sell bi di Touba fekk na boobee ma ngay di fi pexe ngir daal di dem fi nga xam ne moom moo di Dakar ci la ko gendarmerie di daal di géolocaliser gis ni mu ngi ci biir dëkk bu sell bi Touba ci lañ ko daal di yóbbu ci commissariat spécial bu police bi nekk Jannatul Maxwa ay fan ginnaaw loolee yamoo fukki fan ci weeru février bi ñu génn Awa di soxna oustaz bu waaraate bi di Omar Ahmed Sall moom itam daal di dawee woon fi nga xam ne moom moo di ca Kër Massar ñaari fan jàpp ñetti fan ginnaaw bi ci la ko daayira bi di saytu lépp lu jëm ci jumaay Touba ak li ko wër di Muxaddamatul Xidma daal di gis ci boori jumaay Touba daal di fexe ba delloowaat ko ci ay mbokkam ci biir dëkk bi itam am na ñoo xam ni dañoo am ay jafe-jafe ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci wàllum yoon itam dañuy faral di daw di nëbbatu si fi nga xam ne moom moo di ci biir dëkk bu sell bi di Touba kon jamono ji ab laaj daal di sampee jëm ci li nga xam ne moom moo di xewit wi xew ci jamono ji ñu bëri ci askan wi ñuy gis ne dañoo réer te loolu lee di gën di faral di bëri réer googu leen nag ñu ca bëri ca ñoom wala ñëpp sax ci ñi nga xam ne nii jàpp nañ ne dañ leen a gis ñu leen di gisee ci dëkk bu sell bi di Touba loolu nag tax ab laaj daal di sampu ndax ñooñee di réer ñoom ñoo tànn daal di dikk ci dëkk bu sell bi Touba ngir daal leen fii fore si wala itam ndax daa am beneen mbir mu làqatu ci ginnaaw loolee ba ñu réer ñëpp jamono ji ñu leen di fore fi nga xam ne moom moo di ci dëkk bu sell bi di Touba loolu loolee tax ñu bari ci askan wi jamono ji di sampab laaj waaye tontu la nekk lu jafe ba nëga ni kenn mënu ci àndeegum ab tontu ci lu waral ñooñu di réer waaye itam lu waral ñu ci ëpp ca ñoom ñu leen di fore ci dëkk bu sell bi di tuuba kon nag mu bokk ci liggéeyu police wala l'enquêtekat yi ñu seetlu lan moom moo waral ñoo ñële ñu leen di fore file